salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com kon ni nga ko defee saa su nekk tey ñu dalal koo xam ne suñu plateau kenn door ko présenté ci Sénégal muy Balla Diouf lu ñu defee lu ñu jox ko kàddu yi après ñu dikk ak moom ci waxtaan bi bala ñu leen di di la ziar. waaw maa ngi leen di fay di leen jox seen wàcc kontaan trop ci invitation bi. mi ngi noonu tey euh, bala Diouf lañ dalal koo xam ne maa leen koy wax ne kenn dootu ko présenté fii euh, euh, ci histoire du Sénégal rawatina ci wàllu làmb def na ci du nekk lu ñu dugg ak moom rek mooy Balla Covid bi gis nañ ko nga yéen mbër yi ban ban ban kii la def ci yéen. waaw salaamaaleykum di nuyu Sénégal ñëpp. Mm. donc di profité rek jaale sunu papa Mbaye Guèye. ñu mm. fi jóge yàlla ko yàlla xare àjjana. Mm. di masawo ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci mbënd bi te parce que tey actuellement mbënd bi fu mu ne nii moo gën a tar sax Covid bi fii may wax ak yow. Mhm. di masawu ñëpp ñu nga xam ne tey mbënd bi dal na seen kaw. Mhm. di wax ne nag feebar bi mi ngi fii mhm. vraiment euh, ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ñi ngi def tous les moyens possibles. pour vraiment nit ñi mën a vacciner wu le maximum possible. Euh, Sénégal defe naa ni képp ku ci war a mën a dox ñu ngi ciy dox. feebar bi mi ngi fii mi ngi fi vraiment doy na waar daal. ba tax na tey. Mhm. Euh, feebar bi mi ngi fi dëgg la. Mhm. mais tey terewul benn activité. mi ngi dox. Mhm. activité yëpp a ngi dox. du dëgg tey administration yi ñu ngi liggéey. bureau yi ñu ngi liggéey. société yi ñu ngi liggéey. Euh, boîte yi ñu ngi dox. restaurant yi ñu ngi dox. car rapide yi bus yëpp ngi dox. du dëgg mais tey làmb rek lañ téye. te loolu rek moo ci moo ci point noir bi daal. mais quoi ñu teel am parce que ñi gis ne nawetaan ah, ñi nga xamal ne ni mi ngi am ah, ak ak ak ak ah, championnat bi Ligue 1 pourquoi yéen ñu ñu arrêté làmb ji lan moo waral. waaw mooy question mooy mooy question yi ñuy posé wu ñun ñëpp. Mhm. question la boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy posé posé wu. Mhm. tey vraiment doyoon na waar trop doy na waar trop parce que tamit. Euh, amul dara lu leer amul communication amul sensibilisation amul dara. Mhm. dañoo xëy du jour au lendemain def seen i moyens ak seen i pexe téye làmb ji. Mhm. ba pare au notre à not grande surprise. Mhm. sunu président génn vraiment def benn communication boo xam ne vraiment xaaruñu ko woon foofu. parce que tey boo jiitee ay ndaw. ci biir ndaw yi am ay kilifa. tey lépp looy def war nga ko pencoo diisoo ko at ñoom waxtaan ko en tant que président waroon na génnee communiqué. vraiment. expliqué lan moo tax ñu téye làmb ji. Mhm. mais tey li ñu teg suñu loxo rek mooy problème mu sécurité problème mu sécurité amul. Mhm. du dëgg. Mhm. mais tey làmb war na weesu foofu tey Sénégal war nañu jëm ci ay sécurité privée. wala ñu forme ay stagiaires. yooyu yëpp tey population bi bëri nañ jeunes yi bëri nañ. côté yi ñu war a mën a ubbi mécanisme yi ñu mën a créer pour former jeunes yi ñu spécialisé wu ci dara tey dafa bëri tey ñi ngi defar stade ay stade jam ñaajo dañu war a former ay stagiaires ñi nga xam ne tey seen liggéey lii la ramasser bal la hmm. wala ñuy seen liggéey sécurité état la hmm. wala noonu tey war nañ ci spécialisé wu di ci former jeunes yi hmm. parce que tey jeunes yi bëri nañ ñu amul liggéey yooyu yëpp ay aspect la yoo xam ne mais Balla bëgguma la pourquoi euh, yéen yéen maam ñi jiite làmb ji sax du coow day am ñi euh, euh, former seen association nekk ne ñoom dañoo ñëw pour xeex pour lire te en même temps Gris Bordeaux leen jiital pourquoi yéen nangoo leen déggoo seen biir parce que coow li na torop ñu ngi koy wax loolu lu ñuy déplorer la ñun ñëpp. Mhm. bu ñu sañoon du am. Mhm. parce que tamit ñun tey bu ñu sañoon ñun ñëpp ñu ànd. Mhm. mais je pense que problème communication moo ci bëri. problème communication da cee bëri at organisation. du dëgg moo ci ëpp. tey defe naa ni président Gris Bordeaux moo jiite association nationale des lutteurs. du Sénégal euh, tey defe naa ne tey at lu mënti xew. frustration fu mën a am. ci dayoom président te Gris ñëpp xam nañ ni ku am xel la. Mm. tey mënoon na. Mm. mënoon na tey fexe porte benn combat boo xam ne mooy tey. tey à Corée am tey làmb ñëpp dinañ booloo. Mhm. mooy tey du xool ku koy critiquer. Mhm. du xool ku koy xas. Mhm. du xool ku koy ŋàññ. mu njabootu làmb la jiite surtout làmb boo njabootee ñoo xam ne ñëpp bokkuñu mentalité. ñëpp bokkuñu façon bu ñuy xalaatee. ñëpp bokkuñu fu ñu jógee ak éducation bokkuñu ko. donc yow yaay am maturité ak ouverture d'esprit boo xam ne tey. di nga mën a encaisser. ba pare mën a njaboote ñëpp. c'est juste problème boobu rek lañu am. Euh, problème bok gis-gis. ba suñu suñu indifférent mënuñu si communiqué pour se retrouver mm. c'est ça mais tamit dañuy gis ne mbëri ndaw yi saa yu suñu tool dañ naan ñun Gris Bordeaux jiitawuñu loolu ñoom ñoom la ñuy wax faa mu danaa ñoom Gris Bordeaux jiitawuñu parce que euh, moom état bi da koy jënd wala loolu noonu loolu nag ngeen ko dundee non kenn jëndul kenn c'est juste que problème mu mm-hmm. problème mu comme ni ma la waxee rek mm-hmm. xam nga xale yi dañoo mérité considération parce que ñoom ñooy nekki magi ëllëgu réew mi mm-hmm. ñu bokkee ci dara tey frustration mun ta ñàkk critique mun ta ñàkk mais tey bu frustration amee yow mi nga xam ne yaa jiite mhm. même bu fekkee ni faute bi jógewul ci yow mhm. mais fexeel xam ñooñu lan moo leen frustré nga communiquer ak ñoom dalal leen dalal seen xel xëccaat leen ci sa bopp bu la déggee daal mooy communication bi moo xaw a des communication moo amul d'accord communication ku nekk rek da ngay tirer sa boor mais mhm. communication amul te njabootu làmb benn lañ tey li may wax rek Euh, ñoom ñoo fi nekk tey ñun mm-hmm. bàyyi nañ bëri mm-hmm. ñoom ñoo fi nekk mm-hmm. ëllëg dañ fiy jógee xale yee fiy nekk tey avant ñun avant ñun am na ñu fi nekkoon mooy paa yi tey boo xoolee mooy association de sages ñoom tey ñoo fi nekkoon tey lii ñuy dégg yëpp ñoom ñoo ko daa dégg tey déggatuñ ko ñoom ñëpp dem nañ toog rangé wu ëllëg ñun dañuy rangé wu ëllëg xale yee fiy nekk ëllëg ñu rangé wu kon tey dañu war a am ay projet d'avenir dañu war tey ubbi suñu dënn ubbi suñu bopp yaatal suñu bopp di mm. communiquer at ñëpp mm. fexe xam ku si nekk lu la metti buñ ci mm. mënee indi saafara ñu indi ci saafara buñ ci mënul saafara ñu ne ah lii kat mënuñu ci indi saafara may kat ñun ñëpp ku niñ koy waxatee rek wat gaal at yógoobu du dëgg mm-hmm. tey Gris moo jiite association bi mm-hmm. te ku jiite tey waroo waroo bañ ñu ne la sa taat dafa rëy mm-hmm. du dëgg. Mhm. tey ku jiite da war a nangul lépp. ba pare ku jiite sax yaa yow yow lu ne di nga ko dégg. lu ne di ko dégg. Mhm. parce que réew mi fii jiite fi moo metti tey jiite fi tey dafa yombul. Mhm. mais boo demee ba assumé ni que ne yow kat lii nii. tâche la boo xam ne bu bu difficile la. Mhm. nga nangu koo chargé wu. Mhm. tey war nga nangu tey lépp loolu la ci fekk rek. Mhm. war nga ko nangu at ci sa grandeur. nga fexe ñëpp booloo nekk benn. alors loolu yaakaar naa ni ah, ah, lu am solo la ci lu Balla Diouf wax yaakaar naa loolu tamit conseil la pour mbëri yeeg ak ak ak ci mel ni Gris Bordeaux tamit dégg ko bu ñu jugee foofu rek fële ah, dañuy dem fenn mooy Balla Diouf gis nañ mbayang lum def feebar daal dem na fu nekk di wayal làmb fu nekk woo nañ ko. ñu gis tamit euh, Bébé Saloum ñu ngi naan dafa feebar ci prison bu mu nekk ba muy demandé euh, liberté provisoire léegi loolu nag nga ko gisee en tant que. waaw euh, c'est déplorable tey ñun ñëpp bëgguñu kenn ku laal famille lam bu feebar wala dara benn gàllankoor dal la. Mhm. mais ndogalu suñu borom bu wàccee ci doomu aadama. Mhm. tey doomu aadama yi mu daa nekkal. Mhm. mooy njabootam muy mondu làmb. tey je pense que actuellement mbayum lum. mérité wul sax ñu koy ketal. mérité wu ko. lu mu def lépp parce que tey. Mhm. li may wax rek Sénégal ñi am mérite kenn mhm. joxu leen mérite. ñi nga xam ne dañoo yàgg bégal waa réew mi. Mhm. bégal jox jox vraiment satisfaction at at at at bànneex. doomu aadama yi ci réew mi souvent ñooñu du ñu am retour. ku mel ni Mbaye Ngloum làmb tey CNG moo waroon njëkk a jóg. mobiliser monde làmb ñu boole suñuy siddeem ak suñuy daqaar dem seeti ko CNG moo ci waroon njëkk. bi ci topp mooy ministre des tey Euh, tournoi d'Afrique yëpp drapeau chef de l'État yi. Mhm. Ah, Euh, yëpp dañ ci daa gis mayam lung da daa jóge dëkkam ñëw yendu ci làmb ji ba di fa fanaan mm-hmm. di wëyal làmb kon tey mondu làmb mm-hmm. ñoo war a jóg mm-hmm. ah jàppale mbayam lung est-ce que tamit nekkul ne euh, ñëpp toogee rek euh, di xalaat ay CNG wala ministre des sports est-ce que dina est-ce que dina jëm kanam parce que dama yaa yéen nekk ci làmb yéen yéen a war a mën a comme seen association boobu ngeen toog ngeen waxtaat xool ndax ngeen def ba dimbali ñoo xam ne xam nga tey loolu yëpp dëgg la mais tey làmb njabootu làmb la ñu wax te njabootu làmb dafa am ñu ñu jiite te ñooñu exemple yu mel nii dañ leen ciy xaar. Mhm. tey loolu day booster ñëpp ñu mën a jóg def dara. Mhm. tey am na loo xam ne euh, bu ko ministre sport jugoon taxawee. Mhm. def ko CNG topp ci ñëpp ciy topp. parce que ñoom ñoo ñu jiital. Mhm. dañ ko dafa rafet rek ñu wax ko mais kenn warul xaar. Mhm. mais euh, Bébé Saloum nga ko gisee. waaw c'est déplorable tey. Mhm. du yem sax ci Bébé Saloum at Bébé Diène. Bébé Diène. Euh. Bébé at Bébé Diène dañu feebar nekk ci kaso bi. du dëgg. at jamono ji fu toll nii période Covid bi tey war nañ mën a am clémence. ci ñi nga xam ne tey ñii ay espoir lañ ci ci réew mi. tey def nañu juum te mënta ñàkk. juum nañu corriger nañ leen jéggal ba pare wax leen ni. wan ah ci li ñu nekk amul sens mais ci lii ñu nekk moo leen ëppal njëriñ mooy tey mhm. làmb ji ñu nekk ñu nekk espoir mhm. nekk ay jeunes sénégalais yi bëgg leen mhm. ñu def ay erreur tey ñoom reconnaître nañ seen erreur ñun ñëpp ñu ngi sàkku di ñaan parce que ñaan rek la ñu mën ñaan rek rek rek rek lañ ci mën parce que tamit euh, ku am ku am problème at at at at euh, at justice at yoon tey yoon rek moo la mën a jéggal tey nag ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ñu ŋànk njoon mm-hmm. suñu njaboot yooyu suñu rakk yooyu ñu jéggal leen mm-hmm. ñu dellu seen njaboot yi dem faju ji mm-hmm. ndax am nañ njëriñ ci réew mi parce que ay lañu yoo xam ne tey euh, làmb soxla na leen tey nekkuñu ay jeunes yoo xam ne jeunes yoo xam ne tekkiwuñu dara ci réew mi ah tey am na ñoo xam ne tey am nañ yaakaar ci ñoom yaakaar boobu nag yàlla bu mu tas parce que tey euh, corriger nit baax na trop ah corriger nit baax na trop mais jox espoir nit tamit moo ko gën Mhm. parce que tey ñi ngay ñi ngay corriger mhm. li ñu leen di li ñu leen di yaree xam nañ ko parce que ñoom toll woon nañ foo xam ne ci réew mi mhm. tey lii nii bu leen kenn waxul dara sax ñoom xam nañu du dëgg xam nañu li ñu def waruñu ko def xam nañ ni li ñu def rafetul xam nañ ni li ñu def ñaaw na mais dañuy ñaan clémence dañuy ñaan ñu jéggal leen ba ñu dellu seen biir njaboot macha allah euh, Balla bëggoon naa waxtaan bu gën a neex gën a yaatu parce que lu ñu mayoon ci temps jeex na lu ñu def rek lu dul euh, jox la nga tàggatoo ak mbokk yi macha allah li nga wax kontaan trop ñëw ci émission bi vraiment mhm. eh, di leen ñaanal aussi parce que ba ma ñëwee fii ba léegi ay jeunes rek laa fi gis mhm. te ay jeunes yu dynamique mhm. ay jeunes yu am xam-xam tey boo gisuma fi kenn koo xam ne am na trente cinq ans wala quarantan ans ñëpp ay jeunes lañu. di ñaan yàlla ñu màgg ci jàmm. ànd ak kër gi màgg ci jàmm ba kër gi doon télé. doon ay journaux dem doon doon média. d'une manière général di ñaanal kilifa gi at soxnaam. ñaanal ñëpp ñaanal sénégalais yëpp. vraiment ñaanal mbéyam lu yàlla fëgg boppam mm. ñaanal sunu rakk yi ñu génn fa ñu nekk Sénégal nekk si jàmm ñaan yàlla mbas mi jóge fi jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu doon seetaan yaakaar naa tey kontaan ngeen boo déggee Balla Diouf ngeen xam ni wax na lu ne lépp loo xam ne lépp day rafetal làmb lépp loo xam ne day taaral làmb ci waxtaan ni ni ñu war a def ak nu ñu war a waxtaanee lu ñu def rek lu dul moom it di ko gërëm parce que kilifa la tamit di yëkkati ko yombul booba léegi ñu ngi koy wax di ko toog di ko xaar mu ñëw bàyyi itam yëpp ñëw kon duñ defee lu dul di ko sant di ko gërëm di leen wax di ëllëg ak keneen incha allah di gërëm sama camarade bu jeey jaajëf